حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات mbokk jullit yi mbokk taalib yi ñu ngi leen di nuyu di yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tariqatil muridiya ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér naa li nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko kattan ak yor ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee mu yónni ma ay kàddu yu nuyoo ay kàddu yu cant ak i ngërëm sëriñ bi wax ne day jaale ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko te nekkoon ci seen liggéey bi doon ko liggéey moom di liggéey Serigne Touba ci ndigalam ba yàlla def seen bakkan rot fa nee na loolu nañ xam ne lam leen waxoon rek nañ xam ne ñooñu eh, shahid lañ shahid nag dara ëpp ko daraja ndax wa man yaxruj min baytihi muhaajira ilallaahi wa rasulihi summa yudrikuhu lmawtu faqad waqa ajruhu kon ñoom lañ doonul am nañ ko te ku ne xam na ne kat di liggéeyal Serigne Touba ba sa bakkan des fa loolu dara lu ko ëpp yaakaar amut kon nag sëriñ bi nee na na seen ñi nga xam ne ñooy seen bokk na seenam xel dal ci ñoom ngir xam ne wóor na ko ne ci liggéey sëriñ Tuubaa lañ doon nekk ba seen bakkan des fa kon nañ xam ne wóor na na ko na leen wóor na sëriñ jëf kon nag ñu ñaan eh, ku ci ne ñëpp bu fekkee bàyyi na fi njaboot yàlla na suñ borom aaral leen njaboot ga te xam ne fañ nekk moom eh, moo leen dàqal fii ñu nekk wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquun farixina bima aatahum allahu min fadlihi kon loolu mooy li kàddu yi nga xam ne waxoon ne naa ko yëkkati jëme ko ci seeni bokk jëme ko ci yéen itam ndax ci yéen lañ nekkoon ànd ak yéen waare ba des mustaanisiina bi askaarin waayaati حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات sumtum wajuhun tawilun baadahu saharun wa xuslatun an shuyuuxin bil ishaaraati qawmun tariqatuhum takfil murida azan min almaridi wa anwaa alxururaati